Baye Assane. yaa seede. sport la ñuy dem de. waaw waaw. faaw ñu takk godaas. waaw waaw. daal di duggaat ci terrain ah, ah, xam nga loolu kon. waaw championnat Sénégal day waaj a commencé. oui. Euh, te ci wàllum gafa Sénégal. faaw ñu waxtaanee nag yan solution lañ mën a am ba li nga xamante ne moo di championnat Sénégal bi nag mën a rentable pour ñun. yow say laaj daxa neex. nga ma. say laaj daxa neex waay am laaj daa am laajin. <laughs> <laughs> c'est bien day day day day maanaam laaj bi bu départ rek daa xam. Hmm. daa xam daa gis mu leer nañ. Mm-hmm. footballu Sénégal. Mm. jafe-jafe bu jeunesse bi am ci Sénégal. Mm-hmm. football bi mën na ko lijjanti. le championnat on nous qu'il va démarrer le octobre. Mm-hmm. incha allah xam naa ñoom ñoom Thierno Dramé ak ñoom Françoise Seck. kilifa yooyu daañ ci dikk bu baax mais. lu tax ñu ñu ñu ñu am envie wax ci waslu ci ak mhm. moo di ne le championnat de foot économie la mhm. xam nga économie mhm. industrie la emploi la force de décompressement la da nga wax bi xoolal xoolal les grands championnats comme le championnat anglais bi daw fi RTS xoolal stade yi xoolal public yi xoolal peuple yi xoolal ña faa nekk. Mhm. les billets sont achetés à l'avance. Mhm. les populations viennent en famille. la circulation. Mhm. dëkkuwaay ya environnement ba jaaykat ya le mercantilisme merchandising bi branding bi. le marketing dans son ensemble. business la. qu'est-ce qui empêche Sénégal. amaat business boobu ci jamono bañ ko amee woon bañ doon wax jaraaf jia mhm. tey championnat bi buy commencé nga am jaraaf génération foot am Tëngéej FC bi nekk leader bi jëloon championnat bi daaw mhm. après nga war a yóbbuwaat population yi parce que en fait niveau d'agressivité gis nga Sénégalais yi ni ñuy gaaw a mer mhm. parce que la nature a horreur du vide mais keroog euh, Ndofène mi ngi ñu koy junj waaw nañu aspect mystique bi dafa yàq lu bari ci championnat Sénégal bi ñu toftal ci itam violence bi nga xamante ne ñoom ñaar daanaka ñoo lëkkaloo non mais parce que parce que ma la benn affaire mhm. il a raison lu ci bëri il a trop raison mais au-delà environnement bi mm. environnement bi le jeune qui sait jouer au foot mhm. mu xëy jàngiwul hmm. nekkul ci formation professionnelle liggéeyul mën na football lool amul ku ko jàppale mu dem ci club yi voilà il se réveille il est là oisif. Mm -hmm. qu'est-ce qui se passe quand tu es oisif tu es sujet à toutes les mm maléfices après lan ngaa def xolil fa mu gën a yombee rek dem toog ci bopp koñ bi boo mhm. dajeeg benn Baye Assane boo xam ne yàlla xam doy na mu am fu le la loo mhm. nga viré mu nekk ensemble de jeunes qui virent mhm. alors que le jeune on l'occupe un peuple on l'occupe su football bi tegoo ci sens industriel et économique. mën na changer dara. culture bi ñoo wax le sens auteur écri écrivain. Mhm. auteur écriviste. le sens artistique artisan créateur. Mhm. le sens des arts le sens musical et mhm. cetera fu ci nekk industrie si l'État parvient à mettre des stratagèmes et stratégies de sorte que xulil ñii nekk ci yëngu mm. ñii nekk ci yëngu ensemble boobu mooy tax dëkk bi du ñu stressé. Hmm. nekkul comme genre forme ASC yi ñu daan def bu njëkkoon nga xamante ne nekk association sportive et culturelle. oui toftalaale ci ne ren championnat bi dañuy passer de quatorze équipes à seize équipes. exact loolu tamit mënul nekk beneen configuration bu bees bu mën a permettre ñu defaat nag ay études yoo xamante ne dina permetre ñu mën a am euh, lii di économie ci sport bi. mais mais mais lu ci lu ci bari xam sunu baay bi laay jow wax na ko fi mhm. comme Dauphin association sportive et culturelle l'objectif c'était quoi éduquer les masses mhm. yar la woon mm. après lañ ko dénaturé mhm. mu nekkaat leneen parce que yi ci rax mm. état xam nga mbooloo yaa toujours benn Baye Assane bu négatif ba nga xam ni moom moom même bu amee talent ñu ne ko am nga talent pour mu liggéey moom day négatif mm. maanaam parce que ca xol ya dafa am ñoo xam ni boo leen joxe xulil ñu war a yóbbu mbooloo mi fenn ñoom seen xol mooy yóbbu mbooloo mi fu fu baaxul mm. donc il faut football bi kan moo ko defaroon suñu baay bi Lamine Diack mm-hmm. yàlla na yàlla yokk ay leeram ci àldinaam ñu gën a kawe parce que gis-gis mm-hmm. sens bu yaatu. ba Assane tamit ci loolu conflit yi bari na torop ci biir championnat Sénégal. conflit yi nga xamante ne day am ci biir fédération bi. conflit yi am ci euh, litige yi am diggante yenn club yi te régler bu koy régler day jël temps. yooyu tamit enjeu intérêt social. Mhm. ba Assane nekkoon amul lu mu def jékki-jékki yàlla ubbi bunt commencé na dugg ci business bi. Mhm. organisation bi ou entité bi li raisonnement am yëpp mooy nan laay amee. Mhm. il faut ma am. Mhm. léegi il faut ma am il faut que ma def ce que je vais faire yàlla naa am jikko bu baax. Mhm. su ma amul jikko bu baax je vire et je fais virer le travail et je rends tout nocif et négatif. il faut que état wu Sénégal bàyyi xel benn affaire. Mhm. Pape Massata wax na ko fi. sport day occuper jeunesse. sport day defar dëkk UASU dafa amoon bu njëkk déglu nga sunu yaay bi Aminata Touré mu kaa wax ci Deñ Kumpa ak ak euh, Ismaïla Diop UASU lan moo tax tubaab bi di def sport et étude. lan moo tax tey footballu Sénégal ñu am benn résultat bi par rapport à beaucoup de de de jeunes qui qui yu yu éclore dem fenn fi. Mhm. parce que kii mu ngi génération foot. kii mu ngi jàmbaar kii mu ngi académie yooyu. Mhm. académie yi commencé bëri gis naa keroog Cheikh mbeng il en a mis côté côté Thiès mu jumul cinquante. Mhm. y a d'autres qui y léegi état bi moom li muy def rek mooy ñooñu ñëpp mu accompagner leen. yombalal leen ko ministère des sports dem dans le sens de. dootu nekk ministère ministère dañu war a dem coupe d' afrique mm. dañu war a dem coupe du monde mm-hmm. athlètes dañu war a dem mm. campagne maanaam mu nekk ministère de campagne mm-hmm. dafa nekk ministère de concept de conception mm-hmm. d' idée et de stratégie am na solo pour parce que football bi bu gars yi occupé au stade yi di fees mais stade yi buy fees. déstabiliser yi. day stabiliser uh-huh. ça décompresse et les gens. ils se sentent après données yi évoluer. am na solo am na solo lool état bi accompagner ñu tappee xol yi tamit pour euh, mën a wëyal liggéey bi ci sport bi ko <laughs> waxaatal ñu tàppe xol yi état bi daal di ñuy accompagner dañuy continuer ci lancé boobu Baye Assane ndax euh, am na leen loo ma wax fële ci feexu jam Diamniadio jafe-jafe yi daal ma ngay woy alors ñoom sax ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom xam nañ ko fi yaa mhm. waxtaane woon nañ ko fi ay temps léegi restauration ba sax jafe-jafe la léegi hmm. soi-disant que niñ leen doon jàppale nguur gi fi nekkoon et cetera nguur gu bees gi dafa ñëw nangam nangam. Mhm. voilà il faut que gars yi régler problème bi parce que sinon du sotti. Mm. syndicat ba ngay gën a durcir. Mhm. parce que mënut a ne léegi déjà oui le PM a dit que ah machine à café yeeg clim yeeg donc day gën a tar. Mhm. day gën a compliqué. jam ñaajo. Mm. du bërëbu loolu. bërëbu lan la. zone sylvopastorale. Mm, dañ bërëbu bay. waaye yow ñi yow ñi ñooñu tooñ tooñ askan bi tooñ ñëpp ban ko doon wax tey jamono ñu naan ñu noppi leen bàyyi leen lu ne ngeen bëgg ci am xam-xam amu leen xam-xam leen seen làmmiñ yi waaye yow boo amee xam-xam te dëng na léegi building administratif nag bu Mamadou Dia lan moo tere ñu wéyal fa liggéey départ dañ doon wax. dafa lakkoon dañ doon wax une vingtaine deux milliards au départ jékki-jékki ñu ne 34 milliards jékki-jékki jéggi na ko. Hmm. jékki-jékki lakk na non il faut encore 7 milliards. réew mën naa doxee noonu. moo tax audit yii. Mm. cour des comptes yii. pôle judiciaire pôle judiciaire bi euh, télécom yi ñëwaat nii <laughs> yooyu yooyu noonu. Ah. ak yi ñoo wax ni gauche droite ah na jàmm yi am rek waaye yuuxu mën naa am itam. Mm. parce que alal ji daxa bari soxna si. Mm. li l'ancien régime a a a massacré ce pays en termes de dilapidation boo kaa wax nag dañ naan ëpp na. nga ne xaaral ma wàññi ndax mel ni kii nettali rek bu départ rek ñu ne ko waay wàññi ko waay mhm. ndax li nga nettali noonu diis na de ndax ndax dëgg la ñu ñu ne ko wàññil mu ne ma wàññi ñu lu ñu wàññi wàññi wàññi on se rend compte qu'il y a eu des malversations ça et là mais d'une façon inopinée inintelligente irréfléchie et presque bestiale ah yàlla baax na nguur gu bees gi ñi ngi def li nga xamante ne moo di audit administration là waaye tamit administration bi ñi ngi leen di xalaat bu baax rationalisation duñ ko fàtte benn yoon Baye Assane mbokk yi noonu la ñuy def di ñaanal jàmm rek Sénégal